événementiel dafa laaj ñetti volet dafa laaj compétence d'abord il faut mu am ñu ko mën ci compétence yi gis ngeen ni léegi am nañu wàllu animation am nañu Souleymane Gaye si wàllu togg lekk defe naa ne ñoom daaw def nañ ci formation ak ñoom Lamine Tambédou am nañu yeneen volet am solo def nañ fi formation si wàllu togg ak service ak yeneen compétence yoo xamante ne am nañu aussi wàllu communication tey kër Tambadou mu ngi nii euh, TV ngi nii pour événementiel yi la waaye nag am nañ surprise bu ñuy xaar ya TV mu ngi ñëw malik ya TV mu ngi ñëw

dafa laaj logistique matériel yu matériel yu am solo foofu mooy suñu point faible abaguñu foofu doole dama bëgg nit ñi xam fuñ jëm d'abord il faut nit ñi dañu mën ba dëgër nga ànd logistique bi waaye balaa logistique bi tamit ñu ngi nekk di liggéey si infrastructure yi infrastructure yi mooy lan d'abord kër bu bees bii kay kër tamit action ko moom fii la day fa la fi day fan laa nuñ fi amee fii à Mbour noonu la demee à Tivaouane Balantakunda ak Sengeer yëpp ñu ngi nekk di monter ay infrastructure yoo xamante ne ëllëg kër yéen ñi yéen a koy gere seen yëf la comme nu mel fii rek parce que événement aussi dëkk bu mel ni Tivaouane war nga mën a fi nga dalal nit ñi problème yëpp mooy problème dalukaay. tey lu ñu fa yor si ay terrain ëpp na 20 ñu fa nekk di tabax sur mille euh, mètres carrés ay infrastructures yoo xam ne ni pour mën a recevoir le maximum de personnes fi mu ne nii ñu ngi koy def si Senghor commencé nañ ko am nañ yaakaar ni le 27 mai bii di ñëw incha allah bu ñu nee fa la ñuy dal peut-être que lépp du pare sax waaye bu dee ay bâche la ñuy def fanaan sax waaye au moins waa Senghor jël nañu cette surface bu am solo jox ko suñu wax. ndax am nañ dallukaay pare Mbour presque fu fa dem léegi moom dafa naan suñ kër gi mooy loolu waaw am na gàmmukaay am na lépp defar nañ ko noo xamante ne mooy loolu donc dama leen woon évolution bu ñu nekk dem ak fu ñu jëm il faut nga am ay infrastructure il faut nga am ay infrastructure te fi mu ne nii Kër Tambadou action si infrastructure yooyu la nekk bëgguñu teel a dugg jóg songu eh, logistique bi parce que ñun nag bu ñu nee bu nag dafa war a nekkal logistique logistique mooy lan mooy ay bâche yu mucc ayib ay chaise yu mujj ayib solo bu mujj ayib transport lépp war a am équipement boo xam ne foo ko ne cas lépp mat mais des na parce que depuis daaw que mois de mai bu ñu déparé ñu ngi ñëw parce que infrastructure yi si lañ nekkagum lépp dafa am logique bu mu doon dox parce que ci lu gën a jafe fa la ñuy dem taxaw mooy diine bi ku nekk mën nga ci liggéey te doo ko jeexal foo am doole demal taxaw foofu di fàttali rek nit ki incha allah le 27 mai xadaratul juma populaire bu ñu war a am fële à Senghor boobu tam ngeen commencé ko préparer parce que seen i événement la yéen a ko war a gérer comme d'habitude am ci taxawaay di gërëm ñëpp di sant ñëpp.